basuma basuma mbare su ko nonko abidje iba famale dia tey moom live bu gaaw laay live bu rapide ci marchand ambulant ou marchand encombrant parce que tam réew mi toll na foo xam ne la jeunesse la jeunesse foog ñu waxante dëgg la jeunesse bu ñu waxantewul dëgg rek dina am kuy nax sa morom wala kuy jéem a dëpp sa moroom te man taluma dëpp ay nit. ambulant pour man mooy koo xam ne day jël bagage am yor ko di dox ak moom di ko jaay si man loolooy ambulant kon à ce trouve actuellement gouvernement bi terew leen liggéey ñoo doon xeexandoo daaw ak daaw a jédd te bu leen foog ne bu dëgg jotee pour des problèmes politiques dañ la naan yéen a nekk si yoon si yoon depuis si ngoon yaa ngeen may woo père père père nii xaw ma marchand ma leen booy tey dama nekk nii si concert yaa leen gis ni tay dama tardé gars yi démarré nañ ole fii wooy une minute gars yi démarré nañ man démarré gu ma booy foog ma nekk tubaab yi tuuti nit ku ñuul yi fii dañuy toj ndey sa booy ole oh, fii jarif je suis avec mes fioles marchand amela ngeen may wo ne ma lan Ousmane Sonko lumuy def buñ démé élection xamala nak lan da nga ni toj dëkk bi waaye xaar leen ñu ñëw amela moy lan bi lan ko xamné mu ngi yor li muy jaay di dox di ñak pour jaay moy dugg ci kër yi manam bëcëk fukk yi bu francs, cent franc yi ñooñu ñooy marchand ambulant yéen it loolu ngeen déclaré vous vous êtes déclaré des marchands ambulants boy, de neex mais là au Sénégal vous êtes devenu des marchands encombrants vous encombrez la société te yéen ak ngeen ak ngeen qui def nii faal am na ku ci nekk Colobane kenn ki tëngëj ñu wax si sànq ba dënn bi xiixit nga foog damay teggi sama tànk <laughs> fal duma faral nit ci lu dul dëgg du ma faral nit si naaféqitisme nekkuma sax ci loolu bala nga ko doon xam tay Ousmane Sonko jalgati si ngeen si ngeen may ba ndax man soxlaa mu ko may setan man kuy deglu sama message kuy comprendre sama message lay soxla mais pas jëm ji message bi la soxla message bi ngeen dekkoti ko ko codé ko ci 250 mg Yen yi vous encombrez daaj ngeen dekk bepp ay table tek ko fanu tek ko fanu len rek dama ci metti mairie Thialmangalang ñooy ñoom ñoo ko nangu woon daaje len ay table di len fayeku 6000 par wer di ko fayeku chaque jour wa legi yeen mairie yi xanaa li ci dajji sen table ni yeen di ngeen rembourser boy yi tuuti xanaa di ngeen jox boy yi tuuti te yéen marchand ambulant dëgg ma sonal faal man France fii 2017 bi ma jógee Légion xam nga lu ma doon def jaay brochette ci diggu mbedd bi fii 13e rue laa teg sama di jaay brochette tubaab yi wax wax ma ne leen du ma jaay drogue du ma sàcc du ma martaatu tubaab ñëw leen 13e laajte ma foyer malien yëpp un an d'affilée tubaab yi mu jéem a yóbbu mairie wutal ma kayit boo xam ne si ma hebdomadaire yëpp laay dem taxawaalu ba marché montré am naa droit dem taxaw fa jaay. Aïe Moi, le marchand ambulant doit être quelqu'un de mobile. Boy, de neex yàlla faal mënu leen xëy rek ku nekk daaj sa table toog ne fii laa nekk kolobaan moom marché bépp la ñu war a tojat ndeyam bàyyi kër jàmbur yi ñu respirer il faut que les gens respirent. Biko Khalifa Sall di def dama doon yuuxu tàccu tatu yi metti far Macky Sall me kharam di ñëw def yifi politique politiser. légui nak mu ngok Ousmane Sonko lo xamné dépassé na ça fait 14 ans mom lay ñëw ni reprendre à zéro légui nak ci kaw Ousmane Sonko lay dal fekk né waroon nañ ko def ça fait 14 ans en arrière. la jeunesse yeen si bopam yéen war bañ encombre dëkk bi té bi fi Paul Kagame yegsee première visite président bu dugg Sénégal muy Paul Kagame la lañ né préparez-vous à tout. ndax moom dëkkam dafa kaare amul bordel bi am Sénégal te ñun suñu bordel amul fenn fudul Guinée Conakry oh les filles j'arrive euh, j'arrive mm, mm, mm, j'arrive là marchand ambulant la jeunesse booy munu leen wax munu leen wax ba ma far leen si seen daaj taabul toog boobu moom d'accordum ko bool bool yàq nañ nday ndakaaru daj nañ ndey fep ay table demal buntu pekin pàkku lambay fep daj nañ ko ay table sotti fo huile pour takal ko wone ni fi sen société la ni xaj di def ñew saw ci milieu wala gayne mala ñew saw ci milieu ñom bol bol duñu jël takal ko huile saltel ba pare ku wax rek nga génne ay table tek ci buntu kër gi ni fi mbedd bour la mbedd yep lañuy toj ndayam ya trop de bordel ku nek tabax sa kër génne 2 mètres soit disant c'est chez moi toj ndayam jaa al aq mal baatinu réew boo leen faral da ngeen faral ci deug eh budé man ak man soxlaa ma nekk député soxlaa ma bokk ci benn gouvernement mais kuma jox sama conseil liro sama message ma ñew ci live yekk ko sa nday nga boy tatu nga tepp ragalutuma dara Sénégal fu mu tolni nga xamna né politique

mais ni ngeen laloo noonu daaj seen i ci diggu dëkk bi du yoon xëy leen di wër kenn terew leen jaay man tey dama ko laajte benn commissaire mu ne ma waa mais yow est-ce que gis nga ñuy dox di daay ñu ñëw nungu seen i jaay yóbbu ko mën na ko wéy c'est vrai mu ne ma mais ñii dañ ñëw daaj sur la voie loolu man dam ko mos a kaase dem leen Ziguinchor man maag sama 4-4 rek dem leen xool ñaata infraction laa de fekk la ngay teg table bunt banque ba demal xool ñenn dañ doon wax dama tàng xol fin bi ñu dem ba si biir xam ne non grand bi rëbs la jeex noonu lay dundee yoon lii lay tere yow ngay def dëpp fa laa lay fekk massacre la ak sama oto point final bu may dem garde bi dem ko point final fii kenn du final kenn du final man loolu laa gëm man boo koñ bu ma dëkk su leen neexee boo yëpp ne pas allemand mais man règlement fay nekk man loolu laa gëm règle c'est que civisme dama ko dund c'est man éducation civisme morale man yooyu laa gëm ba tax na gëw man day ñitu diplôme man ñitu valeur laa gëm xam nga man lu ma gëm ñit ku am imaan nga xool ko gis imaan ci moom ku si mel ne booy boobu génnoon primature di yuuxu libere Sonko ñu dóor ko ci kaso bi le jeune saar la tànc tànce ko man xam nga li yëpp nag xam nga lan moo ko indi boo gisee marchand am laay xeeb seen bopp tubaab daf ñoo moom nax ñu même Ousmane Sonko ak Diomaye tubaab daleen leen moom nax leen. je m'explique Cheikh Omar Diagne bu taxawee ne leen politique l'islam Rasulullah moo ko fi njëkk def waaw mais ñoom tey ñi ñuy fal yëpp politique bi ñu jàng kan moo leen ko jàngal Rasulullah wala Charlemagne ñu nos politiciens sont instruits par Charlemagne d'abord. mu ñuy neex mu ñi naqari ñii Mao Zedong moo leen instruire ñii Haïlé Sélassié moo leen instruire les plus jeunes Nelson Mandela les plus jeunes Thomas Sankara les plus jeunes cette génération sénégalaise là nak bi yaakaar na ñom ñoy 1 milliard d'habitants Sonko mo len inspirer té ñom ñi Sonko inspirer 3 millions 500 d'habitants habitants lañ def ku ñuy diplôme 6 7 diplôme 8 9 c'est bien beau wante ana valeur yi gëw may diplôme bu valeur tegoo gëw may diplôme bu jikko tegoo jikko yi moo tàng Sénégal jikko yàquwul de mais dafa tàng ndax xam nga lan xamuñu luy sobe xamuñu luy bokkaale koo wax mu ne la bokkaale tey naan comprimer dem hôpital ñu koy opéré ñu koy noqi piqûre injection pour mu jóg tane yaa fi dàq bokkaale yow mi di dem hôpital di faju bi ndax xamoo luy bokkaale suñu mam iblis len rek la joteeg suñu borom lan xol ba mo tilim yalla nako ko raxasu jil mu dem sangu ba set ñewat di leer leerlu ya nga yalla nako ko raxasu jil wat raxasu na bay bëgg a fin bi mu tak ay takam parce que c'est normal munta set li tilim li nit munta setal ñun Sénégal loolu ñu dar motax man su mu leen ne du ma jullit dugg juma xam nga luma sonal da ngay dugg juma fekk xol yu bon ya fa upp fekk bokal ya fa upp te si ñom kuy takk téré moy bokal fekk ne ñom ñi bon xol yene wo li nga yene sa bop yene wo ko sa morom nit man yaw la dul julel, motax ma cheikh lu juma dama lu juma nu meegi dama ko seexlu dama cheikh lu juma ba di ngay gis ko xamne mu ngi dugg di seug ci ginaaw imam bi yene Imam de mu jite ko kenn beugul kenn ci bir juma bi buñ jullee ba par ñepp joxante loxone balma ak ma fa julli xetu medd da lay xeeñ gis nga ñi ko xol gi bon day dee du dund xet non buñ dugg si débat yooyu c'est trop spirituel li xew Sénégal kenn mënul wax lépp parce que li ñu leen ne mooy sobe li ñu leen ne mooy bàkkaar mooy bàkkaale njaaloo boolaale jigéen sangu jul set sangu set set loo la faal faal sangu set set loo la faal gars yi foog ñu setal réew mi pour ñu setal réew mi waratuñ ko teg ci politique. Mm. Oh, je suis en train de développer quelque chose là, s'il vous plaît. Je suis en train de développer vous aussi. Waratuñ ko un contexte politique. contexte politique. récupérer. ba vais vous jëlal ma vidéo réunion bi responsable politique bi yenen lay dinañ la song débat de base états unis duma ci di joxe révélation gaay di ci nek né amu tax temps responsable APR yi commencé nañ nak dugg ci combat bi té naka lañ si duggé Farba Ngom a commencé yónnee ay linkam kay wuy Farba Ngom Farba Ngom gauche Farba Ngom droite kenn amul droit jëlé len fi état bi amul droit jëlé len fi amuñu doole jëlé len fi ndax mairie mo len fi tek ya ngeen ni bëgg carte gi gaay gaay na jup na rafet Yakna naa booy yi ngeen commencé nan leen di ngeen leen di financé pour ñu defar ay marché fi fi da ngeen ni duul bo leen mënon financer bi ngeen fi nekké ngeen financer xalé ñi ñu defar seen marché vous mentez da ngeen ni yeen ñi nak ñu nara muro ma ngi dégg ñi nan suma yegoon alhamdullilah rabbil alamin ba seen yaay yeb suñu yaay yeb mos nañu wax suñu yegoon ndax suñu yaay yi bi ñuy judd buñu yegoon ni buñu juddo ni lañuy mel ñu nit taxaw di tëgg ndeyu réew mi nii dinañ ne bu ñu yëgoon yen ñi naan suñu yëgoon seen yaay bu ñu yëgoon ne boo leen juddoo nii ngeen ni mel doo leen xam foo leen ni taxaw fal ñit même pas ñetti weer ñëw taxaw ne bu ñu yëgoon seen yaay duñ leen jur pour defar réew foog mu metti boo leen ma weddee laaj leen seen yaay bi mu ñu ëmbee ñun dem nañ dem suñu ndey rek référence non maman laa leen di bindal de référence maman man duma jël livre Heidegger duma livre Einstein livre Karl Marx ces livres d'imbéciles je ne les prends pas eux tous c'est des imbéciles pour moi je ne les prends pas parce que des fils de pute eux tous ils étaient pour la traite négrière je, ne vais jamais me référer à Karl Marx je me réfère à ma maman qu'est-ce qu'elle a subi pour que nous nous taxaw doomu début grossesse lan moy am ay nausée Sénégal ma may ci nausée la nek mënu leen wax ba Sénégal du takarna sa tang tar sen tuur tar parce que Sénégal dañ tàmm yëful naa fekk fen buy défer mo gën dëgg bi yàq mo ñu sonal légui nak nu dëgg bi yàq ndeyu lépp vous encombrez le pays té dañ leen né ambulant il faut circuler il faut tourner tay bo jaayee Colobane suba nga jaay HLM suba Gueule tapé suba Sandaga mais nga xey daaj sa table né yaa mom ba sant nak melna yaay wa quartier bi sax buñu waxe nga saaga leen day quartier yi prenez vos responsabilités de ku yokkati yeen la jeunesse formez-vous def len ay brigade les nouvelles quartiers da ngeen koy lancer def ko opération les nouvelles quartiers yeen ne da ngeen ni soppeku no bo len gisee jeunesse bi bu len fakk ni jeunesse bi affaire yi metti de affaire yi metti na mais bagn gatte dafa graw xam nga man luma sonal ni ci combat bi defet moo ci toppaloo ni ah yéen leen faloon di ngeen xam loolu laay daw moo tax maman bi xoola lu bëri neexuñu barki Serigne fàllu bu leen foog lépp a neex de lu bëri neexuñu mais xoola foog wannaasu xeex ak ndey dëmm yi ba écarté leen ba pare ñëw assemblée national député yi nee nañ dëgg rek a ma sonal tas <laughs> assemblée nationale bi du baax ndax am na ñoo xam dëgg rek a ma ba jon yàlla àddina du tukki même yabar xiyam yàlla du leen wax député duñu leen xàmmee ci député yi ndax dootuñu nekk mukk député moo tax man leen liste national foog ñu bàyyi ko foog ñu génnee liste national député yi nee nañ ñu si bëri leb nañ ci banques yi ba noppi ñoo xam nit ñi leb nañ xaalis boo xam ne gars yi dañ koy fay en cinquant mooy seen durée mandat léegi bu ñu leen coupé est-ce que état dina jël ay responsabilité fay rase bi député yi nee nañ. ñoom dootuñu wax ak Ousmane Sonko monsieur le président bassir Diomaye Faye la ñuy waxal mais pas le premier ministre. député yi nee nañ askan wi nañu xam ne ñoom député askan wi lañ te askan wi xam nañ ne ñoom dañuy fen c'est ça qui m'a fait askan wi xam nañ ne député yi foog ñu teggi leen génne leen fi te moment bi député yi ñu ngi xeex pour bañ jóge assemblée nationale te foog ñu jóge assemblée nationale. monsieur le président Bassir Diomaye Fay lo bax bax bax lo eumbul eumbul eumbul eumbul assemblée nationale bi mënul dem assemblée bi mënul dem et ça ne va pas aller assemblée bi tas ko au plus tard mois de septembre ñu demat élection législative jalat ci lenen man lool la gis ñi ma ci déggantal nak samay gayen li ma leen wax su suuf ci téléphone laa leni waxat ci kaw foog ñu tass assemblée bi pour ñu xam kan ak kan moy kam pour xun xuneti xam seen xet fokk ñu tas assemblée bi ñu demaat élection législative su boobaa nag dinañ xam ñu nax ñu lay nek député ku ci mel Barthélemy Diaz mom yow mom bali nga yow mom bali nga PD sam ñu bari daa ñu baali APR mom 5 député do lañ ko am ma leen wax li tay so leen ma weddee nañ dem élection législative kenn rek ma metti ci combat bi Amadou Sall t'as souffler le chaud et le froid li ngay dugalaat sa loxo nii pour di déstabiliser du woon loolu teggi sa tànk dugal lu sa yoon nekk marchand ambulant yi bu ñu doon sa piège yéen marchand ambulant bàyyi leen ñàkk jom Amadou Sall deful kenn ci yéen prête non benn waa APR mosul def si yoon prête non ku leen ne nag mën na leen financer ba yéen ngeen xeexal gouvernement bi da ngeen di fen ku leen ne mën na leen finance ba ngeen xeexax ñi da ngeen di fen parce que ñi moment bi ñoom ñoo yore armée yor gendarmerie yor justice

comme da ngeen bëgg a dee nag te bëggu leen wéqu ci Ousmane Sonko la des nee na am na droit dem defi déclaration woo ñu ñu ñëpp jam ñaajo yéen ñëpp ngeen dem jam ñaajo mu def déclaration politique générale xam nga déclaration politique générale kan la concerne ça concerne le peuple et non les politiques déclaration politique générale ça concerne le peuple et non les politiques les politiques n'ont rien à foutre que d'ouvrir leur gueule concerne le peuple Yen askan Yen dawal kata sareti Yen ñooñu dañ leen ni nax Yen lu Ousmane Sonko war dem genre laay fi muy dal defat ko meeting dem assat taxaw ñew def déclaration ni leen yen eh ndaw ñi eh yen lay waxal nax yen ama fal Yen fi la leen bëgg jëme ben député falul Ousmane Sonko encore une fois ben député falul falul Ousmane Sonko. Code Saranton Kaya Wilson comment va et eh, tay ma ngi benen secteur mais dina jaar ci rukku ba après tay dama sama oh lalai <laughs> la du bruit là. <laughs> gay D.P.Z.B. Sonko da koy def bala ñoo dem vacances mois d'août Sonko dina leen bégal pas na faire passé non a la jeunesse préparez-vous en conséquence Assemblée nationale ñoo premier ministre Ousmane Sonko il a pris ses responsabilités de faire sa déclaration de politique générale devant cette jeunesse C'est sen kanam yéen ñun su suñu kanam def est-ce que vous avez compris dinañ leen manipuler wax leen lu nekk isolation pour Ousmane Sonko Diomaye bi kooku du ma ci dugg bàyyi leen ñoom ñu jouer seen rôle nañ ko jouer rek nañ ko jouer rek ci base yi nag ils l'ont réussi ci base yi moom du leen nëbb am na partisan ak waa parti bi ak les patries je ne sais pas patrie les apatrides lañ leen di wax ak les partisans ba tax na yéen la jeunesse réfléchissez bàyyi leen table yi ngeen di daaj kenn terew leen jóg jaay jóg leen jël seeni i jiin ak seen yooyu lonkoo seeni jiin dem liggéeyi ji lañ leen wax. vous encombrez le pays daaj taabal yi lañ leen tere daaj bi mënatul nekk ambulance ak encombrement mooy sax ça ne sonne pas bokkul ambulance vous vous devez tourner gars yi nañ leen waxante dëgg waay booy leen nag di ma woo bëgg ma laajte ay conseil ma leen wax dëgg ñenn ñi di mer ba may raccroché au noo au nez xam naa ne da ngeen may raccroché ba pare di saaga mais seen dëjëw ndey ngeen bokk nday Pastef sax seen lëfal nday saaboo boo leen yeewoo man booy faalewu ma de ñoo doon xeexandoo man dama leen doon yónnee xaalis yéen man dem man maa leen doon yónnee sama crédit man maa leen doon yónnee sama crédit tey nag mënu leen ñëw te ku ma woowati téléphone si yéen wax ba saaga gouvernement bi ak boole ñu si ñun ñii ñëpp fal gouvernement bi booy dina saaga sa ndey ba bonde sa kaw xam nga téléphone baa tax muy rus yenn yi mais su ma jàkkaarloo nii vidéo du ma rus parce que téléphone ndeysaan nit ki bu jëlee téléphone am am temps woo la moo tax dama lay bàyyi nga tàkk sama kaw quoi ngeen tàkk ma aju ne la waay booy te ngaa def nag Sonko jëmul xëy na lii booy tey ngeen tey booy tey ngeen tey bi nag dam ci commencé maar katt leen ndeyam fii dañuy mën a muñ gérer affaire bi dóor ko mais on en a marre di ñu woo di ñu wax seen soxla bu ñu leen bëggee wax dëgg ngeen ni ñuy saaga man nekkuma fi eh nekkuma serveur vocaaru Ousmane Sonko de pour ngeen ni ma woo bëgg a saaga Ousmane Sonko di ma saaga nday man ba may tàkk nii booy maa ngi ni muñal nag mais muñ bu nekk dafa am fu mu yem yéen a nekkul ndey si yoon tegg leen seen table si diggu yoon bi encore une fois tey tey tey samedi bi tey laay mujjee dékku saaga. bu sénégalais bo xamné ne man néwon na ma sama carte dañ leen koy votel ba paré ñu ngi ni dima toroxal jeunes yi amu amu lu ñu lu muy liggéey carte leen ndayam fële yeen ak sonko yeen ak lay mujjé mujjee défier saga bobu tay samedi bi je vous le dis de gis nga yo saga yooyu tax nelawaguma pourtant tay dama sonu bëtëg bi mais guma nelaw ndax tay xalé yo xamné ne dañ la rousson daw xalé yo xam bi heure daw ñu la naan père ngay defax ñom lu nek tay ñom ñoma wo tay saga man day tay ndax lan dañoo dajji seeni cantine ba paré mané len dañu wara dajji kanti ni ngén may saga nday man té pourtant man saga len man day do sunko kantin ngén ni saga ndax ñom ñoo dajji sen kantine boy man may respect France luma ci mais ndax ma len ci duggal boy quand même on se respecte bu ma respecté rek la len ñaan respect man xamna né xam nga lan mo tax ma leen di déglu ngeen may saga nday mënu len jot ci Ousmane sunko ak buñ len wul ngén saga nday da manifester tay ñun lay fër yi gars loolu lañu dëkke ni allo wi way grand affaire yu katta affaire yu ñappa affaire ni sanko ni ah on accepte parce que lan dañu bëgg ngeen décharger wu mais def leen ko moo laa maa ngeen def ko kay sof xol mu saaga sen ndey mais man ci téléphone bi je suis obligé d'accepter mais nak boy ça s'arrête de tey moom li ngeen ma def c'est trop parce que tay fi ngeen ma toroxalé kenn du fa toroxal gor fi ngeen ma fekk tey fa ma ma toog fa ngeen may toroxal te yéen ñoo daan ànd daaw ngeen xeex xeex bépp ñu dóor leen ay lacrymogène ñenn ñu nekkoon kaso. tey yéenay ñëw tey di ma saagaat nday ak Ousmane Sonko ak Diomaye booy yàqamti ngeen te ku yàqamti yàqule ku yàqamti rek yàqule booy ku yàqamti yàqule gënu leen ma ndey gënu leen ma bàyyi mais <laughs> mais ndeysaan âge âge moo tax xale daf may woo di ma daggal ndey may ma naan la man la booy te ngeen muñ booy maa leen gën a ba oh ndeysaan adduna adduna adduna adduna boo amee doom yoo xam ni seen âge <laughs> ay xale 23 ans di saaga sa ndey ndax Ousmane Sonko ak Diomaye ndeysaan ndeysaan ndeysaan ndeysaan waaw c'est normal nag c'est normal non booy saaguñu ma man j'ai compris que ne booy saaguñu ma état bi la ñuy saaga gouvernement bi la ñuy saaga mais booy ku leen ne da ngeen waroon am foofu marché day fen yéen géejawaay ñi yokk seen kër yi préfet Rufisque encore booy sàmm félicitation un gog un day ñëw ci bànneex mu teggi toj sa kër toj li nga yokk dem yoonam doo mer du mer ñun loolu la ñu gëm booy bu leen kenn jaxaseeg Ousmane Sonko encore une fois bu leen kenn jaxaseeg Ousmane Sonko. bu leen kenn jaxaseeg Ousmane Sonko li ngeen ma wax dégg naa ko nee ngeen Ousmane Sonko moo leen joxoñ kon moom lañuy ñuy dal kawam merci beaucoup looloo doon objectif bi pour Bassirou Diomaye Faye libre mën liggéey ñun ñu xeex ak Sonko mais ngir yàlla la jeunesse bu leen kenn jaxaseeg Ousmane Sonko bu leen kenn jaxaseeg Ousmane Sonko tar tar tar tar tar nañu des si wetu Sonko xam naa fi may waxee wax ji di si ñaari at dina yomb wax mais bu ñu sori mukk Ousmane Sonko sori ko mooy xoola ñun ñoo ko sacrifié te bu ñu sacrifié Ousmane Sonko. ñun ñoy ñak lo xamni ne d'ici cinquante ans duñ ko amone sori nañ ko moy gaay isolé ko wané nañ ne taxawuñu ci wétu Ousmane Sonko ñii heure bu la neex jël nguur gi li xew Bolivie nak exemple je vous lance un appel solennel gaay yi bok leen jinn ak seen yéré jaay boy gënu leen ma neex man damay jaay ceeb damay jaay ay milliards lay génne ni ci ay deal ay deal yu milliards lay neex pourtant damay xey am filingu bañ tok damay gaddu sama yéré ay cuub dem di ko jaay Saint-Michel benn 30 euros saay ma rey tubaab jaay ko ko 50 euros saay ma jekku benn espagnol jaay ko ko 100 euros saay ma jekku kii ñi tam jekku ma saay ma yërëm la may la ko saay ma jaay la 20 euros dil noonu lay deme mais tu ne peux pas rester sur place fii Sénégalais yëpp ay marchands ambulants lañ mais ñoom it dañuy bëgg a ñëw lal Tour Eiffel mais gars policier dañ lay teggi amoo droit lal tu a circuler man je circule mais man jaay bi may jaay si mbedd bi man en su ma ci amee feeling damay defar samay barketu ceeb jaay barket 3 euros au lieu euros parce que pour lan les SDF damay jaay ceeb damay jaay brochette damay jaay yére damay jaay pourtant maa ngi sama liggéey maa ngi samay diil yu neex mais feeling la feeling nit da ngay am feelingu promouvoir pour bu fi keneen ñëwee nga ne ko kaay ma teg la ci code fii mooy code bi tegul fii di am weccit ba keroog nga am kayit man noonu laay doxee Europe pour ubbi ay société manutentionnaire loolu laa nekk di dox Europe mais ay toog xëy wàcc toog pastelu puudaru aw ma boobu musicien la guddi gi yaa ngi damay liggéey bëccëg guddi gi maa ngi ni ci terrain bi yërëm leen ñu gënu leen ñoo am métti de on souffre en silence ku njëkk yuuxu baadoo la nga gore woo marchand ambulant moytu leen ma nag moytu leen ma de coow laay bañ barki Serigne Touba bu ma duggee si coow li damay yokk su génn bàyyi leen ak Sonko ak Diomaye xoola bàyyi leen ak seen lépp ngeen bëkkanteeg ñoom ñu xool après kan mooy am lu tooy bu leen waa APR fenloo bu doon ñoom ñoo leen di defar bi heure defar nañ leen bu yàgg yéen nag lan moo leen métti li ngeen xeex ba pare ñëw def leen lii ça ne veut rien dire jub jubal jubbanti foog ñu régler réew mi omelette moo fi dàq yéen a fi dàq lekk ndey omelette yéen a fi dàq togg fiir yi te foog ngeen waas ko xool li jën bi dagg ci biir xool li lépp gars yi ku bëgg defar da ngay toj defar réew ak degou, ak am konviksyon, ak am amisyon, fok mou mette, mali, mamay, dafad, dakar da se sinyom, eske degou yon peopel maliyen wak? Eske le peopel maliyen aparde, bun yon geno gore? Sou konon ko ebidye, i bafa mali dja.